wa cala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-caziim wa radiya allaahu tabaaraka wa tacaala can saxaabati rasuulillaahi sallallaahu calayhi wa sallama wala xawla wala quwwata illaa billaahi al-caliyyi al-caziim mbokk yu tedd yi ñu ngi àndaat ak yéen ci seen xalqa jotaayu fiq di ci ànd ak ci ICFA TV ci ndimbalu Islamic Cultural Foundation of America tey nag bi idnillahi tabaraka wa taala ñu ngi ñëw ak ci nawaqidul wudu inda saada almalikiya rahmatullahi alayhim yi firi njàpp mana yi koy yàq ci ngiru imaam Malik xam ngeen ne boroom xam yi am na yuñ dëppoo ci yàq njàpp am na yit yuñ ca dëppoowul bu ñu leen mëmbëstalee li ngiru Malik mi suñu ngir jàngale incha allahu danañ leen ci tegal yenn wuute yi nga xam ne madahib yi am nañ ko ci ngiru Malik njàpp ci ñett lay yàqoo benn muy jëmmi toj lu mel ni sanguwaay akramakumullah ak yeco ya ko niru wala ne du jëmmi toj waaye sabab la cause la yuy indi toj lu mel ni nelaw ak ya ca topp ak loo xam ne du toj du sabab lu mel ni riddatu nasalullah salaama <clears throat> jëmmi toj yi muy al ahdath dana séddaliku ci juróom ba ca njëkk <clears throat> wala juróom yooyu mën nga wax ne <clears throat> mooy yi génnee mooy loo xam ne génn na ci benn ci ñaari génn waaye ñaari génnuwaay bu kanam ak bu gannaaw lu ca génnee ci juróom yii njàpp la dafay yàqu bu njëkk ba mooy sanguwaay akramakumullah ñaareel ba mooy ngalawal ñetteel ba mooy dem joor ñeenteel ba mooy wadriw juróomeel ba mooy madriw Bichar nee na bawlun wa riixun gaa'itun maca alwadi wagsil jamiica alfarji naawin lilmadi sanguwaay moog dem joor te mooy dem gannaaw kër ak wadiyu bu ñu génnee ci doomu aadama ci benn ci ñaari gennuwaay non seulement njàpp la dafay yàqu waaye dees leena war a setal mënees na leena setalee ndox comme mënees na leena setalee doj ak yi mel ni doj ci jumtuwaay yi ñuy setale bu dee ngalawal setal ndax air la rek du sobe bu dee madhi nag am na attee bu spécial moo di ba ñu laajee yonentu sallallahu alayhi wa ki madhi génn ci moom mu wax ka ko laaj mu dem ca ka ko yóbbante ne ko dafay raxas zakaram maanaa awraay góoram c'est-à-dire mad yu fokk borom raxas ko waaye fokk borom raxas sakara si yépp awra wi yépp la ca taq mad ak la ca taqut ndax xadiisu yonent ji dafa wax ne na raxas sakaram bi ci toppit mooy daf koy booleeg yéene lu tax ñu ne daf koy booleeg yéene ñu ne bépp raxas goo xam ne du raxasug jaamu waaye dañoo war a dindi sobe ga rek duñ ca boole yéene waaye mët yu nag gannaaw dañoo wax borom ne ko na raxas ba raxas lu sobe laalut ca sàkkaram ñu ne raxas go kon raxas taabudi la fa kullu xaslin taabudi yushtaratu aw yajibu fihi niya bépp raxas boo xam ne raxasug jaamu la borom daf caa war yéene moo tax njàpp ñu ca yéene looloo tax kon madiyu raxas ko aju yéene ibnu ashir nag tudd na ci yàq njàpp sala suweef moom fukk ak juróom benn la ko def kon tudd yi nga xam ne ñooy jëmmi toj muy sanguwaay muy ngalawal muy dem joor muy waddiyu waddiyu ndox la mu weex muy génn ñaareel gannaaw bu nit ki sawee ba pare lay génn mook madiyu ñoo niroo couleur waaye madiyu bànneex koy génnee bu dee sabab yi <clears throat> góor ga Bachar nee na asbaabuhu zawa zawaalu aqlin imma bil jinni aw bis sukri aw bil igma sabab yi nga xam ne ñoom duñu yàq njàpp waaye dañuy yóbbu nit ci njàpp lu yàqu moo tax ñu considérer leen comme yàqkatu njàpp yooyu yan bu njëkk ba mooy zawalu al aql xel mu dëñ moo xam mu dëñee ci benn ci ñett yi mu dëñ benn borom dafa jàpp ba pare ndof jot ko bu wéree njàpp la yàqu na day jàppaat aw bi sukri wala borom dafa jàpp ba pare naan sàngara mandi bu mandi ma dëñee dafay jàppaat walla borom jàpp ba pare walla nit ki jàpp ba pare xëm ñett yi yëpp xel ma daf cay demee bu ximmilikoo bu wéree ca ndof ga bu dindee bu dëñee ca màndi ga njàppam toj na ca biir ñetti yooyu moo tax dafay jàppaat ñaareelu sabab ci sabab yi toj njàpp mooy nelaw yu diis bashar ne nawmun tawilun aw qasirun in thaqul laa xafa maa qasrin wa nadban in yatul nelaw yu diis moo xam gudd na moo xam gàtt na njàppul li dafay nelaw yu diis nag danañ ko xamee ci lan ci ñàkkuk yëg nit ki bu perdre yëgam ci biir nelaw lu gàtt-gàtt nelaw yu diis la gudd na wala gàtt na njàpp li yàqu na nan lañuy xamee yëg gu ñu perdre yëg gu ñu perdre ñu ne bu fekkee ne am na ñuy waxtaan ci wetam te gut leen dañ cay xamee ne nelaw ya diis na ñàkk nag yëg wala li boroom xam-xam yi daan wax ci téere yi ida saqatat subhatuhu aw inxallat xabwatuhu su kurusam waddee te yëgu ko wala ferankulaayam fecceku xabwaam fecceku su kurusam waddee nelaw yo dis na su ferankulaayam nelaw yo dis na xabwa bi danañ ko daan jàngale ñaar benn koo xam ne dafa ferenkulaayu ba pare jël ñaari loxoom dégg nga teg fa ba nga xam ne tànk yi du dëñ su loxo ya dëñeeg tànk yi mooy ferenkulaay ba yàqu nelaw ya diis na wala bu njëkk ñu daan nekk ci jàkk yi di fa yàgg dañ daan wéeru ci jënu jàkk yi muy pilier yi su fekkee nag danga fekk ni amuloo foo wéeru danga daan gis euh, euh, da jël sa kaala daal di ko jaarale ci sa suufu woom takk ko ci sa ginnaaw daf lay servir équilibre su fekkee nag takk-takk boobu ak jotaay boobu fecceeku na ñu nekkoon ko nelaw ya diis na waaw borom euh, téere yi dina ñuy misaalee nelaw yu diis loolu bu dee nelaw yu gàtt nag bu fekkee nelaw yu gàtt la te eh, woyof du yàq njàpp su guddee te woyof du yàq njàpp waaye sopp nañ borom jàppaat ñetteel ci sabab yi waral njàpp lu yàqu yi yàq njàpp mooy lamsu man tahwa bi tabin mu'tabar laal koo xam ne dees na amee bànneex cig laalam aadatan moo xam góor la laal jigéen wala jigéen laal góor aw lamsu man tahwa bi tabin muctabar bi ladatin muctaadatin walaw dakar loolu nag ci malikiyatu la buñ déggee ci yeneen ngir yi danañ ci am yeneen yuñ wax mel ni shafiiyatoog ñu ànd ak ñoom ne lamsu boobu aw laamasumu nisaa yàlla euh, sëy la ci jublu ala kullin nañu yem ci ngir mi ba pare ci ibnu ashi dana tudd sax xublatu donte yeneen ngiri duñ ko ca boole xublatu mooy foon mooy foon jabar walla jabar foon jëkkër <clears throat> ñeent sabab ci sabab yi yàq njàpp mooy laal awra góoru góor góor bu laalee awraay góoram te mu laale ko biit tënkam walla mu laale ko ay baaraamam ñu ne njàpp li dafay yàqu waa kër Abu Xanifa te danañ ca wuute waaye danañ ci ñëw ñu ne dafay yàqu ñu nga sukkandiku ci man massa zakarahu falyatawadda bu dee jigéen la nag wuutee nañ ci dana yàq njàppam du ko yàq ci madhab bi wa massu ixlilin bi batnil kaffi aw isbain wa mraatun bil maanaam bu fekkee jigéen moo laal awraay jigéenam ndax njàppam dana yàqu wala du yàqu kooku wuutee la ci biir madhabu imam malik liñ dëppoo mooy góor laal awraay góoram laale ko tenqam wala baaraamam ñetteel ba ci yi yàq euh, njàpp mooy loo xam ne du sabab du toj waxoon nañ leen toj sabab ak loo xam ne du sabab du toj toj ñu wax leen benn ci juróom yi génn di génnee ci benn ci ñaari génnuwaay muy <clears throat> sanguwaay ngalawal dem joor wadiyu ak madiyu sabab yi ñu wax leen benn ci yi xel mu dëñ moo xam ndofa ko dindi wala mandi wala xëm nelaw yu diis moo xam gudd na wala gàtt na laal koo xam ne dees na amee bànneex ci laalam aadatan aji laal ji am ci bànneex wala mu jublu ko ca donte amu ko ca laal awraay góoru góor yi nga xam ne nag du sababu <clears throat> du sabab du toj ñaar la bu njëkk ba mooy riddatu yàlla na ci yàlla boole musal waa ji dafa jàpp pour julli tisbaar ci diggante bi mu murtat génn ci lislaam ndax su euh, waaye <clears throat> gannaaw ga Euh, maanaam ba mu murtadee génn ci lislaam wala iyaadu billah mu tuubaat duggaat ci lislaam ndax mën naa jàpp ci njàpp lool mën naa julli ci njàpp lool ñu ne déedéet ndax sama borom nee na wa laqad uxiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin te alwuduu min jins min jumlati al amali boo bokkaalee sa jëf yëpp yàq kii kon ba mu génnee ci diine jëfam yëpp yàqu na te njàpp ci jëf la bokk bu dugaatee ci lislaam dafay jàppaat du ca mën a julli <clears throat> maanaam du mën a julli ca njàpp loolu ñaareel ba ci yi nga xam ne du sabab du xadath mooy ashakku sikk sikk nag ci madhab mi ñetti eh, ñetti anam la maanaam sikk sax ci boppam ñetti anam la ci wàllu njàpp mooy kii sikk ndax moom jàpp na wala jàpput julli dafa jot ngay sikk sàkk ndax yow jàpp nga wala jàppoo kooku ijmaan da ngaa war a jàpp wala ngay sikk ci ñaari bu ca jiitu yow leer na la ne jàpp nga leer na la ne toj la nga waaye xamoo toj gi ak njàppali lu ci jiitu kookit ijmaan da ngaa war a jàpp amoo njàpp ñetteelu sikk bi nag mooy ashakku fil hadas jàpp nga ba pare di sikk sàkk ndax toj le nga wala toj le woo kooku ci ngir imam malik sa njàpp dafay yàqu xilaafan lil jumhur waaye ci jumhur li ëpp ci borom xam-xam yi sa njàpp du yàqu te loolu daañ ci ñëw almalikiya wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ba subaak jàmm inchaa allah tabaraka wa taala wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh